taskiru sabaax taskiru laaju soxna Xadi Job Sàmb ca groupe soppe altine dañu bokk ca suñu wëlër yu sell yañu amantewoon ca rajo Dunya soxna Xadi Job Sàmb ma ngay wax ñu leeral ko lan mooy baxda salaam ak kumu dal nooy def ba mu leer nañ buñ paree ñu leeral ko lan mooy xabla salaam ak ku dal nan ngay def ñu leeral ko ko ba mu leer nañ xanaa pour tontu ko dinañ ko defal son spécial muy xabla salaam kese kese ak mooy ku dal nooy def ak moom mooy lan buñ paree defaat beneen son numéro de muy baax de salaam kese kese ak ku mu dal nan ngay def waaw kay ca laaju sëriñ Moustapha Thiam ca miraasu jëmm ji fi bàyyi ko bàyyi fi ay soxna bàyyi fi mbokk mu góor bàyyi fi doom ju jigéen bàyyi fi mbokk mu jigéen pour tontu ko ca ña ko war a doon bokk yépp ñooñoo fi teew dañuy def alal ja juróom ñetti cër jël ñeenti yépp jox doom ju jigéen ña doom ju jigéen ja moom moom ñeenti yépp mu des fa ñeent ñu jël benn cër ba séddale ko jabar yépp ñu yem ja mu des ñetti cër ñu jol ñaar jox doomi baay ja góor ja mooy moom ñaar ya mu des benn cër ñu jox ko e, sër ba maanaam jigéen ba des moo moom benn cër ba noonu lañ koy defee e, bu noonu la ko bëggee déggee moom aywa yoonu daaru musteengoog na dem ci sëñ Abdourahman Mbakke waaye di la xamal ni miraas yi ne ci àddina bi yëpp miraas moo ma ci jox juróomi minit laa la may ma jox ma wax la na muy demee miraas yi xew ci àddina bi yëpp ci diine miraas moo ma ci jox juróomi minit laa la may ma wax la ko ne lu muy am lu mu bari bari ak lu mu néew néew wasalaamualeykum. ca laaju soxna Xadi Job Sàmb lan mooy xabla salaam. xabla salaam la koy waral mooy wàññi ca julli ga yu di sunna yoo xam ne ay sunna lañu waaye nag duñu ay farata ay sunna lañu te faw mu nekk ñaar ca yenn sunna ya mbaa mu nekk ñett ca yenn sunna ya loolu mooy waral xabla salaam jëmmi xabla salaam nag jëf ko mooy lu jiitu sëlmal nga sujjoot ñaari sujjoot ginnaaw ba taaye ju mujj jeexee xabla salaam mooy lu jiitu sëlmal nga sujjoot ñaari sujjoot ginnaaw ba taaye ju mujj ja ca julli ga jeexee wàññi ñetti sunna koy waral mbaa ñaari sunna la salaam mooy lu jiitu sëlmal ba taay ju mujj jeexee nga defaat ñaari sujoot toogaat taayawaat doogu sëlmal wàññi ñaari sunna koy waral mbaa ñetti sunna xabla salaam mooy bu julli jeexee ba taaye jeex bala ngaa sëlmal nga sujoot ñaari sujoot taayawaat doogu sëlmal li ko waral ca julli nag mooy wàññi ca ñetti sunna mbaa ñaari sunna kon jàppal ne xabla salaam mooy ñaari sëlmal avant julli di jeex moo tudd xabla salaam xabla salaam mooy lu jiitu sëlmal xabla salaam mooy lu jiitu sëlmal la salaam mooy lu jiitu sëlmal la salaam mooy lu jiitu sëlmal wàññee koy waral xabla salaam mooy lu jiitu sëlmal wàññee koy waral defe naa foofu leer na de ok wasalaamualeykum ca laaju soxna Xadi Job Sàmb ma ngay laaj ngir ñu leeral ko lan mooy baxda salaam baxda salaam mooy boo sëlmalee ba noppi nga sujoot ñaari sujoot toogaat taayawaat sëlmal li koy waral mooy yokk ci julli ga ba de salaam mooy boo sëlmalee ba noppi nga sujoot ñaari sujoot toogaat taayawaat sëlmal la koy waral mooy yokk ci julli ga ba de salaam mooy boo sëlmalee ba noppi nga sujoot ñaari sujoot toogaat taayawaat sëlmal la koy waral mooy yokk ci julli ga baxda salaam mooy nga sujjoot ñaari sujjoot ginnaaw boo sëlmale la koy waral mooy yokk ca julli ga baxda salaam mooy sujjoot ñaari sujjoot ginnaaw sëlmal la koy waral mooy yokk ca julli ga ginnaaw sëlmal ñaari sujjoot la koy waral mooy yokk ci julli ga foofu tamit defe naa góorgóorlu naa ba wax ko ñeenti yoon baxda mooy ginnaaw sëlmal baxda mooy ginnaaw sëlmal baxda salaam mooy ginnaaw sëlmal wasalaamualeykum ca laaju soxna xarjata arabiyu jàlloo ca soppe alteneya ma ngay laaj ana mbokk mi nga xam ne ab borom da koy sàggane ca ñam wa ñuy togg ca kër ga ana nan lay def xanaa wax doomam mu di ko jox mu fexe ba saa su bëggee lekk-lekk saa su bëggee naan naan na wax doomam mu di ko jox dépense saa su bëggee lekk-lekk saa su bëggee naan naan mbaa bu dee doomam yoru ko moom mu yor boppam muy làmp poosam saa su bëggee lekk-lekk saa su bëggee naan naan mbirum lekk moom bu dee dañ la ciy koñe bu dee sa dooma la yor na lay jox sa dund bu dee yaara yor sa bopp ngay làmb sa poos loolu da koy faj amut geneen garab nag wasalaamualeykum ca laaju soxna xarjata arab yi jàllo ci ñaari nit yi nga xam ne ñaari soxna yi nga xam ne e, seen jëkkër dafa faatu bàyyi leen fi kër ku ne am cëb cër yaag sa njaboot waaye kenn ka daal ma ngay mitital kenn ka rek ca dëkkiin wa ana ñooñu nu ñuy def la leen lislaam sant mooy ñu miraas ku ne xam la nga moom te yem ca la nga moom buñ nanguwuta miraas ñu dem police police ku ne mu jox la sawal nga xam la moom yem ca moom ku ne dem wasalaamualeykum ca laaju soxna xarjata arabiyu jàlloo ca waa groupe altene ancien rajo Dunia soxna xarjata ma ngay laaj sëy ba nga xam ne dañoo gaawantu def ko te fekk ku jigéen ka daa won lor ana la ca lislaam wax xanaa lañu koy xelal ñaar la benn ba mooy bu dee ba ñu takkee sëy ba teel nañoo baari seen diggante ba sequñu dara lu jëm ci mbiru biir néeg dañ ko takk rekk waaye fexe nañ bu dara xew seen diggante dara xewu fa ginnaaw takk ga seen diggante bokkuñu fanaan bokkuñu seq dara ñu boole ca tas sëy ba ca saasa ca saasaay saasa buñ defee lool dey bu amee doom ñu may ko ko sëy booba dina dagan buñ gaawantoo te sëy ñu bañ a bokk ab néeg dañoo juumoon xam nañ ko kilifa ya daal cay jàpp gaaw ñu arrêté bu ñu fanaan buñ jegeñe ñu tas sëy ba ca gaaw seq ñu lal jegeñentewuñu wuñu sëy ba rek lañu tas ñu sarante ne ba ndaw sa am doom buñ ko ko mayaatee dina dagan waaye bu dee noonu lañ ko bay ba ñu bokk néeg ba fanaan sëy boobu dañ koy tas te dootuñu mën a seyaat ba dinay tukki day aram ba faw ba dinay tukki kon daal nit ki bu woneew lor buñ ko mayee mbaa bañ ko mayee ñu gaawantu dindi sëy ba te buñ jege ñentiw la tax ñuy wax loolu ñu gaawantu dindi sëy ba bàyyi noona ñu soreente ba mu am doom buñ ko ko mayee dina baax buñ ko ko mayee nag ñu jege ñante bokk néeg bokk lal te fekk biñ ko koy may daa ëmb sëy boobu tamit dañ koy tas te dootuñu sëyaat ba dinay tukki la ca doon mën a dimbale daal mooy bañ ko yégee ne daa ëmb rekk fekk jegenante wuñu ginnaaw may ga ñu tas sëy ba ñu soree nee ñu bàyyi ba ndaw si wasin ñu may ko ko dina baax ñaar yooyu daal man na fee am buñ bëggee dañoo bëgg sëy nañu fexe ba buñ jege ñante tey it nañ te sëy ba bàyyi ko ba mu am doom ñu mayaat ko ko dina baax kon kii wannu lor daal buñ ko mayee noonu doom mooy solution mbaa bis bu ñu bàyyee bañ jege ñante nag dootul ñu sëy te dañuy tas sëy boobu te ba dinay tukki seen ak diggante dootul dagan wasalaamualeykum ba tey ca ñetteelu laaju soxna xarjata arabiyu jàllo nee na dafa julli gee ba noppi julli safa muy ñaari rakkaaya ba mu pare ca safa muy julli witre ba far jàpp ne safa lay julli ba saar yam waroon a jàng ca witre ba jàng ko ca ndax moom ma nga jàpp ne ma nga ca ñaari rakkaay safa nee na ba mu paree nag mu xam ne witre biikat ñaari rakkaa la ko def te jàngo ci lim ci war a jàng nee na mu jëfaat loola mu yéene mu doon naafi la mu dem mu jëfaat jëmmi witre jàng ca nag lam ca war a jàng ndax noon la waaw wala déet waaw waaw la de naafi la dañoo sopp witre mujj kon boo demee ba witre di mujj nag nga juum def ko ñaar def ko naafila mu dem nga jóg indiwaat beneen witre comme ni nga def noonu nga def baax na danga doon naafi la safa ak witre jëf nga ñaari rakkaay safa ba noppi mu dese la witre mu dese woon la witre witre ba nag nga taxaw di ko jëf far juum jàppe ko ñaari rakkaay safa nga def ko ñaari rakka jàng ca yeneen saar yoo daawul jàng ca witre ba mu jeexee nga doog a fàttaliku ne ah man kat witre ba faf naa ca jàng lu ma ca warta jàng faf naa ko def ñaari rakkaay safa mu ne bàyyil mu dem mu doon la mu dem nga jóg indiwaat beneen witre jàng ca la nga war a jàng dal di sëlmal jóg dem julli baax noonu nga def noonu la julli baax na amul yokk amul wàññi amul sujootu baxda amul sujootu xabla te baax na wasalaamaaleykum ca laaju soxna mama Fatou Tall nee na dafa amoon ay bori koor ca koor ak farataga amoon yéene ju sel ngir gunge kooru farata bu jeexee mu gunge ko ñeenti fan amoon ca bor ca jëmmi weer woowa te amoon yéene tamit woor bisu Arafa ana fi nekk nii nan la war a def pour tontu mama Fatou Tall mooy nim war def mooy fay koor ak farata ba noppi ndax kenn du yore bori koor ak farata di jëf jëmmi naafila moo xam ci julli la moo xam ci koor la kon fayal bori koor farata ba mu jeex takk bu dee da nga amoon yéene gunge ko juróom-benn fan gunge googa deesu ko fay waaye nag sañ nga woor sa juróom-benn fan tamit ne jaamoo naa ko sama boroom rekk mu tudd woor juróom-benn fan yoo jaamoo sa boroom yiw a nga bëggoon ca gunge ga di nga ko ca am aywa mu des bisu arafa mooy foo nekk ci àddina bi buñ nee foofa suba la tabaski bis booba mooy sa bisu arafa loo ca man ci koor ak jàng alxuraan mbaa nga fay ñu la ko jàngal ñu wàccel la kaamil ya baax na su boobaa tamit nga woor bisu arafa buñ nee suba la tabaski une fois que nag yaa nga ca loola di woor koor yooya bisu arafa fekk la ca biir bàyyil yooya yépp ba woor bisu arafa bi ba noppi continuer nag koor yooyee continuer loolee ngay fay muy ca kooru farataga ndax bisu arafa bi benn la ci at mépp kon bu la ca fekkee fay ko woor ko moom bisu arafa te continue la nga doon fay woor ko moom bisu arafa te continue naafila ya nga doon naafila ca gunge weer wa te amoon ci yéene te defoo ko deesu ko fay waaye sañ nga woor tamit yeneen juróom benn fan rek ne jaamoo naa ko yàlla noonu lañ koy defee ndax jëmmi woor bisu arafa daa bokk ci sarti aj mag ca farata ya moo tax looy def ba mu yëg si dangay ngay bàyyi loola jëf ko moom mu ngoog yal na yàlla may dégg ak topp asalaamaaleykum ca laaju soxna xadi joxaane ca France suñu soxna su tedd soosa yal na ko yàlla dolli teraanga ak jàmm ma ngay laaj euh, dafa doon julli safa ak witre bi mu ko tàmbalee ba di ko julli rek am xelam dellusi ci ne ah man kat gee mais ma doon julli yore naa fa sujoot bu ma waroon a def ginnaaw sëlmal te maa ngi nii nekk ci digg julli gi may julli safa ak witre ana nu may def xanaa bu dee yaa nga ca ñaari rakkay safa àggale ko toog taay sëlmal sujoot sujoot bële nekk sujootu ginnaaw sëlmal te nga yore woon ko ci julee gee boo paree ca sujoot bu bu sëlmal nga jóg indi witre mooy benn rakka ba desoon ca safa ba waroon na topp ca safa ak witre muy benn ba nga jóg indi ko bu dee dalaa fekkoon nga nekk ca benn booba dong nag àggale ko moom boo paree ca witre booba nga sujoot ñaari sujoot yële nga xam ne moo la toppe woon ca julleeg gee te nga waroon koo def ginnaaw julleeg gee xanaa di la xamal ne bu dee sujootu ginnaaw sëlmal la moom boo toogoon at doog koo fàttaliku sujoot ko day baax te xam nga nit ki bu toogee at ay julli yu bari dox na ci diggante bi te teewut ñu ne ko boo toogoon at fàttaliku ko nang ko daal di def kon fa ko fàttalikoo rek la ware waaye bula fekkee ci julli bul dagg julli ga àggaleel julli ga ba noppi doo koo def su jootu ginnaaw sëlmal moom lu oyof la su jootu lu jiitu sëlmal nag bu doon mooma géega day yàqu ndax moom moom neexut deret su joot ba nga xam ne da ko war a def lu jiitu sëlmal moo boo jafe moo compliqué ay mbir waaye boo xam ne ginnaaw sëlmal la la war moom ay mbiram compliqué wul foo ko fàttalikoo rek doon leen te toog nga at sam xel dog caa koy def rek dina baax wasalaamualeykum